vidéo bi Tap Tap Send di seen transfert d'argent bi ngeen tamul seen bopp moo leen koy may xibaar yu bésu tey bi dañu koy dooree fa nga xamante ne nag moom mooy ca diwaanu Kolda foofee ñaari mool yoo xamante ni ñu ngi fekk baax fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Saare Demba Modou bokk ci commune bu Médina Chérif ñoom ñaar ñooñu nag la ñu fa faat ñu jaare fa nag génn àdduna gannaaw rek ba ñu yoree yore Sénégal napp ay jën ba noppe ay sàcc ñëw fa songul leen loole nag du benn loolee nag du bile yéen dong la leen daal ndaxte nag ay fan yi ñu génn dañ doon teg seen i ñu koy nag jël di ko jaay noonee nag la ñu def daal di piégé ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy sàcc yooyee ba ñu yekkee rek ba seen leen ñu ñëw nag daal di leen a sàcc yee nag génn seen fetal xeex ak ñoom ba noppi nag tiire leen ñoom ñaan ñoo ñi noonee la jaaree jaare génn àdduna mu nekk nag ab tiis boo xamante ne mu nga am ca diwaanu Kolda ab lañ fa nemmeeku ñi nga xamante ne nag ñoo amal bile ñawtef jamono ji dañu réer réer ne mër police daal dinay nag tijji ab lanket ngir fexe nag ba teg loxo ñi nga xamante ne ñoo faat ñaari mool yooyee nga xamante ne ñu ngi dëkkoon fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Kolda taw bi daal dinay defaat jéeya fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu ñàkkurab ni ki démb la benn tout tànk boo xamante nag ñeenti at kott la amoon daal génn àdduna gannaaw rek ba ko courant daal di maase mu jaare fa nag génn àdduna mu yem woon nag ay taw yu métti yoo xamante ne amoon na ca ñàkku ñàkkurab libération mu biral yi la xibaar ci bésu tayam bi di àllarba nee na nag xale boobee courant moo ko maas mu jaare fa génn àdduna joxewul nag yeneen i détail waaye nag lu ci mën a am nee nañu limu ñi nga xamante ne ñàkk ñi nga xamante ni ñàkk nañu seen a bakken ci wàllum courant rawatina jamono yi nawet bi daal dina yokku jamono ji ñeenti doomi aadama ñu ñàkk seen bakken ci taw yi ba mu tàmbali ba léegi te courant daal di leen a mas mu nekk nag tiis boo xamante ne am na ni ki démb fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu ñàkku rab ca diwaanu Thiès la ñuy dem foofee nag benn jakartamaan la ñu fa faat li ko waral nag ab xaritam nekk ab collègue am la yoroloon junni kott loolee waral mu daal di koy faat mu nekk nag am mbir moo xamante ne amoon na a talaata ba 19h jotee fa nga xamante ne moom mooy ca quartier boobee ñuy woowee som nekkee ca diwaanu Thiès ki nga xamante ne nag moomal bile ñaawteef moom mi la nag. moom mi leen nag lycée Ibe Ndiaye nee na nag loolee ñu koy tuumaal moo ko ko def ndax collègue am bi nga xamante ne moom mooy Cheikh Diaw daf ko yoreloon junne joxu ko ko ba mu ko laajee ni ko nag na ko fay bor bi dana ko yoragul saa bu yore nag dina ko fay ay kopparam waaye nag loolee mënu ko woon a dégg moo tax mu daal di koy jam ba Cheikh jaw jaa di fay jaaree génn àdduna di fàttali nag Cheikh jaw mile ñaar fukki ak juróom-ñett kott la amoon ci saa si la daal di génn àdduna ca bërëb ba nga xamante ne nag fa la ko jamee bi mbir commissariat bu premier arrondissement nekk ci diwaanu Thiès ci saa si la ñu ñëw ca quartier boobee nga xamante ne moom mooy som teg loxo xale bu góor bi nga xamante ne moo amal bile ñaawteef moom mi la ñu ngi xamal ni fanweeri at ak ñett la am police ba mu ñëwee jël na néew ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Diaw yóbbu ko ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ba nga xamante ne moo nekk ci diwaanu Thiès ngir amal ab lu ci mën am nag ki nga xamante ne moom mooy CI Ndiaye nee na nak loolu lépp ñu koy tuumaal moo ko def dellusiwaat na nag ci mbir mi anam mu demee ba muy janook àttekat yi waaye nag nag jamono jii daan nañ koy teg loxo fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Thiès enquête ba nag mu ngay wëy. ñu wax ci leneen di mariage bi nga xamante ne nag moo doxoon ci digg journaliste bi nga xamante ne moom mooy Astou Dione ak chroniqueur bi nga xamante ne nag moom mooy Cheikh Yérim Seck mariage boobee daal di jur ab polémique fii ci diwaanu Sénégal ñi nga xamante ñi nga xamante ni ñoom ñooy féministes yi nag di ko naqarlu bu baax a baax ndaxte nag mënuñu baal benn yoon Cheikh Yérim Seck coowal li nga xamante ni nag toppoon na ko atum 2012 gannaaw dafa sàkku benn xale bu jigéen bu doon wuyoo ci turu Aysatu nekkoon nag benn doomi magistrat mariage Astou Dione ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck àjjuma fan ci weeru septembre lañ ko daal dee nag sële fii di diwaanu loole nag métti lool ñi nga xamante ni ñoom ñooy internautes yi ndaxte nag nee nañu Cheikh Yérim Seck dafa nekk ab boo xamante ne mënuñu ko baal li nga xamante ni nag jot na ko def fii ci diwaanu Sénégal. bu ñu jëlee ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Badiane moom mi di naqarlu bu baax a baax bile mariage ndaxte nag nee na Cheikh Yérim Seck dafa mel ni nag dañ ko mayaat ñaareelu chance fii ci diwaanu Sénégal loolee nag di may doole ñi nga xamante ni dañuy ay violeur sénégalais nag ni ñu ko jàngatee mooy ku violé doomu ba noppi bu la neexee nag nga defaat sa vie te dara du la ci fekk loolee nekk ay kàddu yoo xamante ni nag ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Badiane moo ko daal di yëkkati nee na dafa mel ni nag dañuy mel ni mbirum viol dafa daal di nag normal fii ci diwaanu Sénégal te loolee nag duñu ko nangu benn yoon seen làmmiñ lañu yor di daal di wax li nga xamante ne dañ koy gis ci biir société sénégalaise bi nga xamante ne nag ci la ñuy dund le coow sax le président Macky Sall ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck atum 2014 gannaaw ba mu defee lu toll ci fukki weer ak juróom ci kaso bi ñu toppee woon ko nag mbirum a viol di fàttali nag ci jamono boobee atum 2020 nga xamante ne ñoom ñooy féministes yi génnoon nañ ngir signe ab pétition ngir nag Cheikh Yérim Seck bañ a dellusiwaat ci kanamu télé bi di def li nga xamante ne moom mooy ay chronique rawatina ci émission jàkkaarloo ba nga xamante ne nag mu ngi doon am ca diwaanu Télé Futurs bu ñu sukkandikoo ci activiste bi nga xamante ne moom mooy Awa Cheikh Faye nee na ñu bëri ci doomu Sénégal yi dañ naan ah, Cheikh Yérim Seck jotoon naa fay li nga xamante ne moom mooy coowal viol bi ñu ko euh, toppee euh, purgé woon na li nga xamante ne moom mooy penam te dara du ci dëgg ndaxte nag président Macky Sall moo ko gracié woon loolee waraloon mu daal di dellusiwaat waaye nag du benn yoon boo xamante ne nag jot na purgé li nga xamante ne moom mooy penam meneenum coow mi ni mel remeeku nañ ko fi nag daaw te doomam amaloon ko di Seydina Alioune Seck moom mi la nag nga xamante ne doom la ci Cheikh Yérim Seck ca Mbour la doon jànge ci école française ba nga xamante ne moo nekkee ca diwaanu Mbour moom mi la ñu ko doon tuumaal ne dafa sàkku benn xale bu jigéen boo xamante ne nag mineur la maanaam ay ay atam yées na fukk ak juróom-ñett ndaxte nag xale boobee fukk ak juróom kott la am mbir moomee nag bu ñu sukkandikoo ci féministes yi nee nañu dañu ko nëpp nëppal ba kenn waxatu ci mu nekk nag loo xamante ne dafa gën a dugal waajur bu góor bi nga xamante ne nag moom mooy Cheikh Yérim Seck ndaxte doomam joojee fukk ak juróom-ñeent la am nekk na ko xamante ne majeur na te ka mu ko sekkal nag ab mineur la loolee nag Cheikh Yérim Seck dund ko dunduloo ko ñi nga xamante ne ñoom askan bu Sénégal ba noppi ñoo nag duggaat ci xale boo xamante ne nag mën na koo jur di sëy ak moom présentatrice bi nga xamante ne moom mooy Astou Dione nekk fi nga xamante moom mooy ci doonu 2S TV loolee ñu jàpp ne dafay promouvoir li nga xamante ne moom mooy wàllu wàllum viol féministe yi di ko lu bu baax a baax. jërë ngeen jëf mbokk yi loolee moo fi yësandi woon ci xibaar ci chaîne bi nga xamante ni moom mooy Diaspora 221 ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba léegi allah.